aw danoo fanaane napp ba fajar jàpp ñu dara di métti na ayoo ay ñu dem ñu géej mool ba jaaxle euh, waaw bokk internet Sénégal TV yéen a ngi tudd seen émission taxaw seetlu euh, ni ma leen ko waxee si njëlbéenu waxtaan taxaw seetlu moo ñu indi fi nga xamante ne fi lañ dugg tey muy mairie bi euh, ñu fekk fi nag kilifa kilifa googu dinañ ko bàyyee mu présenté wu gannaaw loolu ñu waxtaanee li nga xamante ne ni mooy ñu fi indi ñu ngi leen di fàttali nag. Euh, ay mool la yu nga xamante ne ni dañoo réeroon si géej gi euh, def fi juróom-ñeenti fan monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen waaw. Euh, maa ngi tudd Abdou Mbaye maa ngi premier ngi lay ziar et di kontaan si yombal gi nga ñu yombalal tey suñu gisee.

si ñun la bokk. maire boobu kan la. Abdoulaye Diouf Sarr donc fekkoon mu voyage mu ne ma monsieur le maire ma ne ah man ñooy toutes les dispositions vraiment ñu parce que suñu ay doom la suñu ay jarbaat la suñu ay rakk la ñoom ñoo waaw loolu tamit ñu leen taxaw si def si li xam ne donc moo war mooy parce que soxla woon nañ ko leen jàppale si tàggu ñu mën a dem seeti xale comme yoo fu mu demee bu ay gaal yu ñooñu dañu am suñu jaar ci seen liggéey dañuy dem di seeti ñoom loolu maire bi jàpp na si baax a baax ba pare maire bi dem na sa kër ga délégation maire yi boo xam ne maamu ji dem na sa kër ga doon defal donc lii di nuyu yàlla la xale yi mën nañu feeñ ñu tey au lendemain bi def ay ñaan ba pare joxe leen benn enveloppe tamit ne leen lii maire bi mën nañu ko jox pour ngeen téye ko si famille bi dépense yi xam ne war ngeen ko mën a ngeen def. ñoom ñu kontaan si enveloppe boobu lool. waaw loolu rek mooy loo xam ne donc parce que comme maire moom mooy le premier magistrat donc de la commune donc moom bi lépp lu xew si commune moom a jot te ngir yooyu bi mu amee moom wax nañu jot ñu taxaw si moo tax bis bu ñu déggee ne xale yi feeñiñ tamit ñun tamit si maire am nañ kontaan bu ñëw ñëw santaat yàlla tamit bu baax a baax si loolu parce que loolu lépp mbir yàlla la mais tamit donc di wax ne daal di ñaaxaat nit ñi rek si si si wàllu géej gi ñu doon góorgóorlu

mais parfois suñu mbokk mooy duñu suivre donc loolu te loolu baax na toog ñoom ñu ko xam parce que defe naa journée boobu sax bi ñu wax météo waxoon na loo xam ne donc mooy li war bu baax a baax wala ñu defal leen ay formation par rapport à ça parce doon wax les yi xam ne ñoo nekk fële si si si si GIE bi leen wax ni yéen tamit comme yéen a recevoir les directement war ngeen jël des décision de drapeau maanaam tey bu muy météo ni géej gi day naxari ngeen jël drapeau bu rouge bi teg ko moo du ñu jalgati loolu dañu xam ne donc ñu yaay jalgati tey nag bu ñu ne kii bi neexee tamit jël drapeau bu weex teg ça permettra nit ñi bu ñu tegee drapeau bu ñu ne kat tey géej gi mën na naxari jël leen seen ay disposition ku mënul dem wala amoo disposition yi wax yow nga toog parce que tamit loolu une journée lay doon et tout lu mu metti metti metti affaire sécurité moo ko defal xaalis donc nañu jàpp si loolu pour nga xam ne donc moo li foofu dañ leen sensibiliser waat parce que comme ni nga ko waxee doo toog fii ñetti weer wala ñeenti weer déggoo gaal gu wér te loolu tamit lépp géej comme ni nga wax parce que parfois temps moo leen di naqari mais bu ñu amee précaution yooyu bu jël ko bien avant je pense que loolu war na leen mën dimbali bu baax baax. loolu na leen a bu baax a baax euh, ma di leen fàttali ne rek yéen ngi toujours si seen émission taxaw seetlu taxaw seetlu nag li ko boole ak bi tey ñaari xale yi nga xamante ne dañoo réeroon si biir géej gi def juróom-ñeenti fan. ba ni nga xamante ne nii dëjël nañu leen ngoon googu si la yàlla dogal xibaar ba daal di tàbbi yegg si si famille bi xamal leen de leen xar yi feeñ xale yi feeñ nañu ah, ñu nga fële na leen ci ndax ah, monsieur le maire mu mel ni que yéen seen i jumtuwaay maanaam yéen li ngeen di tere dafa mel ni am ngeen fu ngeen mën a yem am na loo xamante ne mënu leen leen ko tere parce yaa ngi wax dina jël pour ñu sàmm ay drapeau ku nit à votre niveau mun leen dem exiger leen ah, ay ay gilet de sauvetage wala ay dañu wala xam nga machine ay watt yoo xam xam nga matériel yi nga xamante ne ñoom war nañu koy di yóbbu si géej est mun leen jël ay matuwaay à votre niveau ngeen di leen ko exiger ñuy di leen xool di leen surveiller euh, comme ni ngeen leen di daggalee tuuti ñu di koy fay si tefes gi. nee na le ministère de la pêche ak ñi xam ne ñooy acteurs loolu ñu siy waxtaan bu baax a baax comme ni nga wax dafa am wàll moo xam ne bu baax ministère de la pêche njëkkoon léegi xam nga ne gaal yi amuñu woon immatriculation léegi ñu ngi leen di immatriculé yi gis nga ne bu njëkkoon ñu ko parce que ñun ñii ñëpp yoo tey boo soo waxoon dugal si gaal takk gilet mu ne man tàppalaa wala affaire yi nga xam ñu loolu soo dee de sécurité yoo xam ne dafa baax ni mais léegi au fur et ñaa gis ne mool yi am na ñoo xam ne ñu ngi si yeewu mais du ñëpp tey jii nañu wax ne les cinquante pour cent ñu ngi jëm jël les nombre de sécurité nga dugg si gaal bi ku ñu dem géej gi yor joo doo mat yor dara loolu tamit parce que moteur nga la moteur mën nga dem ba si biir géej ay ay kii mété mécanique rek mu paane mu paane donc loolu bu njëkkoon mag ñi dañ daan dañ daan dañ daan dañ daan yor loolu dañ daan yor ay serrage yu fekk nañu fi ñu nekk ay góor ñu ay mool petit mais yooyu xam nañ ko am na ay serrage yu fi am am na ay ay ay ay wat yu mag ñi daan yor yor seen tambal yëpp et tout léegi mag mag bu daan dem géej léegi mu gàddu joowam gàddu kambalam gàddu seeraasam gàddu yëpp parce que loolu ay précaution def boo boo ñëwoon affaire jury mais loolu tey problème fu mu daan am da nga gis gaal boo xam ne day dem bi nag la yaakaar mais te na sa bopp donc loolu mën nañ si ñoom ministre ñu exiger nit ñi ay gaal ay kii de sécurité seen sécurité mais mën na ñoo taxaw si télé bi naan amul juré wala ko amul lay doo dugg si géej mais nit ñi nañu xam ne li ñuy def pour seen seen seen sécurité bopp la tey jii bu fekkee yow yor nga matuwaay yooyu yëpp mais nga wér sax yàlla mën a dimbali ngay joo di joo ba kat baa nga kenn forme mais tey jii bu fekkee loolu amul da ngay topp ndaw mu jël sànni rek moo tax da ngay jékki-jékki dégg gaal wér na fii for nañ ko ndaw wala for nañ ko feneen loolu tamit ñu mën a si mën ñu xool ko incha wul si na ko ndax nag yaakaar naa duñu toog lu yàgg te gisante wuñu donc am nañu yaakaar ne li nga xamante ni moom wax na ko mu génne si gémmiñam dana ko yeggee ki nga xamante ne ni mooy euh, le ministre maire di Abdoulaye Diouf Sarr bu ko defee ñu mën a génn si problème yooyu nga xamante ne moom la ñu nekk mu am beneen seetlu bu nga xamante ne ni ñu waa taxaw seetlu euh, def nañ ko mu nekk ne euh, mool yi léeg lekk dañuy dem réer <laughs> mu mel ni ginaar moo réer ginaar sax bu réeree alors di nga di nga ko déclarer alors ñu ne dem na dem na comme ça dem na léegi dem na ça fait dix ans gis ñu ko vingt ans gis ñu ko amul constat amul benn service boo xamante dafay dem def ay ay ay recherche dugg si géej gi ñu déclaré ne diw dee na wala deewul dem na daal ñi ne dafa dem mystiquement ñi ne. monsieur le maire. waaw loolu moom doy waaw parce que li nga wax loolu am na ay phénomènes yoo xam ne demee na fi noonu am na si yoo xam ne yow fi nga dëkk fa dëkk ñoo bokk benn quartier bi ñu ngi si def ay temps benn émission bu am solo. loolu moom doy na waar trop mais comme li ma expliqué. sama émission bu am solo bi doogu ma la monsieur le maire muy l'oiseau mystique muy sujet tabou bi alors maintenant mu ngi si internet bi soo ko seetee di nga ko gis alors loolu moo lëmbee jamono waaye nag sujet tabou la monsieur le maire. waaw loolu lu nga wax tamit doy na waar parce am na si ñoo xam ne fan ñu defee bàyyi géej xam ñu nu mu demee et tout mais loolu lépp daal comme man li ma si mën a wax rek mooy. man daal li ma mën a wax mooy xaw ma li olof naan fagu xaw ma ma nan avancé yi. Ah. fagaru moo gën faju fagaru moo gën faju donc nit daal ak lu mu mënti demee booy parce que tey jii am na accident yu bari yoo xam ne bu fekkoon ne amoon nga gilet de sauvetage amoon nga leneen amoon nga leneen accident yooyu ñuy wax maanaam sax man accident du ñàkk parce que tey liggéey boo gis moo xam accident ñoo ànd mais ñii daal war nañ mën a fagaru ba xam ne donc yooyu leen mën a dal parce que le problème mooy tey jii.

mais yooyu yëpp boo ko amee si ab dëkk donc yéen ñi xam ne dem koy jëm ngeen war a nekk au norme naan au tey moo ne war na maa nekk au norme pour maa dem géej jamono ba doxee daxaa la dox ko ànd mm-hmm. jamono moo toll fii mu toll mm-hmm. li nu li a wax naan ay ay palaat laax yóbbu dan noo naxax euh, seen sa maam ba ba seenee lala ñuul bu dawax loogu yëpp daxa xew mm-hmm. jamono moo toll fi mu toll tey da ngeen a ñëw en inscrire ba ko defee en xam si li nekk ñun eh, leen na ne ma ko ba baax baax a baax loogu daxeen kaa fat ngeen bàyyi si seen xel ndax loogu am na njariñ lool eh. mbokk yi kat ba leen sàggane seen mbokk ak ah, bu dara eh. <laughs> le maire la ngay lancé nga un message boo xam ne da laak pii si léwu gis naa de ñu mën a xam ne donc li mooy dugg si noppi nit ñi ban doon ay séeréer sax ma ne leen ban ban mbokk yi ñun ah, saax leen il bëggul inoo bëggul te kaa i mbara def lañ <laughs> waaw ma doon si séeréer te bi wax man nag mënoo wu séeréer mais bu léegi bi nga wax moom waaw xam naa ne moom loolu dugg na dina dugg si nopp mool yi parce que comme ni nga wax noonu ni ku nekk da nga koy wax euh, mu gën a dégg li nga xam ne donc moom la jege euh, li nga def nii dañ si dafa am solo trop donc ñu ngi si kontaan euh, di xam ne donc yooyu fi nga dugg nii xam nga ko tey jii li nga li nga li nga may interview nii yaa ma gën a maîtriser sa sujet parce que am na jéego yu bari yoo si dox ñu di la sant bu baax a baax te yàlla dafa def ne xamuñu ndax nit ki par exemple yow booba léegi nga defee ko moom touche du bois gisatuñu benn koor bu mel noonu ah. donc ah yàlla dëgg yàlla nit ñaa kaa wax. waaw yàlla mais loolu tamit sant yàlla xam naa yàlla jaay na ko sa làmmiñ mais loolu dañ si donc na fayal. donc lii tamit ñuy gën a sensibiliser mooy rek di ko wax ak ñoom parce que ñoo ñoo dëkk tey jii ku si am si géej gi ñun nelaw parce que donc ñi si géej gi ak ñi si joor gi ñoo yem même chose ay suñuy mbokk rek la donc li ñu leen di ñaan daal mooy comme ni mu wax sànq rek nañ fexe mooy ñu nekk aux normes nekk mooy y a des trucs de sécurité yoo xam ne dañ ko wax am nga gilet utal sa gilet nga yor am nga sa watu utal sa watu nga yor am nga sa wallax utal sa wallax nga utal sa sa sa sa sa sa jumtuwaay yi waaw sa yi war yëpp pour que booy dem géej xam ne tey nit ki day day wax ne man maa ngi dem géej mais dara mën na ma fa tey nit ku nekk na calculé loolu ne chaque jour. bu may def ak jaba ak jaba parce que bu njëkkoon mag ñi daan nañ ñëw da nga ne jaba jaba am na ñoo xam ne tey bu ñu xamul mooy da ngay préparé benn déjeuner boo xam ne dañ koy yóbbaale. soit nga defar soo defar biscuit defar yooyu yóbbaale parce que mag ñi loo gis ñu daal ko def am noonu tax parce tey jii boo réeré ñu ne ko def juróom-ñetti fan si géej te lekkoo tamit kooku buñ koy forcer dina mais donc man ñi boo daan gis ñu def ak mel ni nga xam ne tey maa ngi dem mais ma ndax dinaa loo xam ne am na lekk ñaari la mën a xam ne donc man mii sax dinaa am ma nekk tout ça donc ñaan moo ñu prévoir ko buñ foog ne loolu ak tàppala wala nangam et tout donc loolu dafa bokk seen kii de sécurité ñu leen ñaan ñu a vigilant ci li daal laa ñu jox euh, ñuy ñaan suñu borom yàlla ñu attanal ñu di di fàttali nag ne njabar da ngay egg tëngeen rek jël ko déedéet njabar du koy def boo demee géej bi nga xamante ne ni gaal gi mu ngi paree teer voilà ñu dem bee ñu ne teer rek la lem caas yi teer rek moo des dañuy door a commencé utiliser tubéy parce que boo ko si moment bi nga xamante ne nii amul euh, xam nga bu la accident dabee si digg da fekk yow xiifoo woon alors problème lay causé donc njaba instant boobu lañ ko jël ñu di leen fàttali rek yéen ñi nga xamante ne nii yéen a nekkoon si seen émission taxaw seetlu dañuy taxaw di seetlu lépp lu nga xamante ne nii xew na si jamono xew na si dëkk bi ak fu mu mënti nekk si àddina bi bu ñu ko moyen maye ñu dem foofu daal di siy def taxaw seetlu waxtaan ak askan askan bi alors lu ñu si yàlla may rek ñu jël euh, ñu ngi leen di euh, gërëm di leen sant di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi